1080 agents dont doon coup euh, sans pour autant daal di jaar foofu ministère exactement ay euh, le ministre euh, le ministre de la santé donc il a évoqué ces irrégularités concernant le personnel du ministère suite à une vérification menée par la direction de la solde qui a comparé sa base de données avec celle du ministère de la santé pour de opération que dina mettre en lumière toutes ces disparités inquiétantes exactement alors. Euh, Cheikh Omar naka nu ko daal di jàngate mu doon loo xam ne itam yéeme na euh, plus de li nga xam ne que moo di euh, mille quatre agents irréguliers waaye itam des salaires fictifs. waaw mais nañu situer les responsabilités parce que avant ministre bi di ko wax sous Macky Sall. Hmm. le président Macky Sall dafa defoon benn audit de la fonction publique. ñu defee audit fonction publique on avait même remarqué bi fi Macky Sall nekkee am na ñoo xam ne dañuy fayeeku ci fonction publique te dañ leen déclarer mort hmm. am na ñoo xam ne dañ leen di fay weer bu dee te xëyuñu gontuñu je te donne une preuve vivante parce que moi j'aime pas wax loo C'est pas vérifiable Comment mu neex mën dem vérifier euh, la poste xam nga poste hmm. Beaucoup na si li ko plus de 3000 emplois yoo xam C'est des emplois fictifs poste bi bi bi looloo hmm. daaneel poste en fait euh, je m'explique parce que poste dañ ko joxoon Siré Dia jamono bi Macky Sall di sur le plan politique ak Idrissa Seck à Thiès mu jox Siré Dia en 2017 Siré Dia jël embauché ay nit yu bëri dugal roof base politique am te du ñu fayee ko maanaam dañuy fayee ko te xëyuñu pos ñu pare ñu jox ko Bibi Baldé hmm. pour mu préparer élection locale à Kolda moom tamit mu embauché roof ay nit hmm. donc fi mu toll ni poste su amatul bénéfice état wu Sénégal moom mooy jël ay milliards di ko dugal ci poste pour poste mën a fonctionner donc finalement directeur poste bi Macky mujjee indi dafa mujjee ñëw ne dafay xool nan lay def pour euh, wàññi benn personnel defal leen ay départ volontaire parce que sont engagé ni wutal ko CDI boo ko koy millions donc loolu Sénégal ces emplois fictifs maintenant revenons à la santé ça pose problème parce que dans nos hôpitaux il y a des militants politiques koo xam des médecins, des du médecin du infirmier nga ñëw fekk comme mu sol blouse ñu jël ko mu nekk infirmier si hôpitaux et puis mieux encore am na loo xam ministère de la santé la mais am na structure yoo xamante hmm. collectivités yi mairie ñoo ko yore. Hmm. ba demee Gaspard Camara di nga fekk ñoo xam ni mairie ñoo leen jël parce que monsieur le maire xam na ko nga dem Padoa am na ko fa nekk parce que monsieur le maire moo prof même dans l'audit de notre système sanitaire ministre bi yamul ci personnel bi rek au delà du déficit personnel le déficit de matériel matériel médicaux donc wàllu sante moom euh, Sénégal suñu hôpital def feebar comme Omar Faye lu mu doon wax naa ni hôpital Youssou Mbargane mooy egg dee tey ku sa mbokk feebar boo amul mooy doo faju parce que boo demee suñu hôpital yi doo faju moom garab yi cher na lool donc finalement après da ngay dem si clinique yi parce que professeurs yi ak médecins yi ñu ngi xar xarmat parce que si hôpital consultation de 3 nga cabinet consultation ou 50 000. alors que la santé dafa bokk à une priorité donc pour moi, on doit situer les responsabilités voir toutes ces personnes c'est des personnes fictives ñu les effectivement et su une ñu top,

Euh, cadre bu xam du lutte contre le paludisme waaye amul benn traçabilité bi na xam ni tam. Ah, na feeñ daal na euh, leer rek parce que en tournoi man moo tax man dama ragal ay piqûre hôpital sax parce que dangay ngay dem mm, mm, mm. infirmière bi te mu piqûre la sa gaan nga paralysé xamoo nit ki fu mu jógee xam fu mu jàngee et puis tey da ngay dem suñu hôpitaux yi xàmmee ku docteur ku dul docteur mais attends su Macky Sall lañ fi gis faux médecin non faux médecin xam nga def na musiba voilà mi ngi noonu te pourtant faux médecin bi da doon ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé par exemple y' a pas un exemple bu gën a clair boobu. que mënuñu ko détecter. waaye en tout cas par rapport ak wàllu gu mel aussi mi ngi suñu aussi. foofu si daanu région bu euh, Kolda amoon na fi <laughs> projet boo xam ne itam tegoon nañ ko fa euh, mu am benn for bu daal toll euh, millions suñu ay koppar moom itam diggante ak 2015 jàpp 2018 en conséquence l'agence française de développement principal bailleur du projet mu daal di suspendre exactement son soutien de financement par rapport ak li nga xam ne mu di wàllu wu mel mu nekk entre autres points yi nga xam ne le ministre du si daal exiger ay. ministre bi daal nga xam alors ñu daal di jàll. santé santé priorité la. alors yow ah, soo siisee fi dugal santé. alors ñu caricéré ah exactement euh, yow fu la neex ngay fël daal. santé détournement bi la wax alors ba léegi daal di ba tey si détournement ak tolluwaay wi si côté de la régie par rapport ak mbirum Mame Mbaye Niang